la vision citoyenne ñun wa frappe, gëm dormir tabax et donc si nous mënul nangu mu am marché publicité nous avons dañuy fay nous avons Mme Terbi, marché bobo, France Nous avons ko un milliard Nous sommes nous fi ay nous Sénégal ne nous def dama leen di fàttali ne am na association bi ñu association des professionnels de régie de publicité yo xamné ne jamono jii may wax ak yeen ñu ngi daaneel sen panneau Dakar ëllëg ñu jox len marché 1 milliard bi ñu jël 1 milliard bi jox ko ay doomu France mais bu mu jaaxal kenn bu fekkee Sénégal am nañ jafé jafe pour safara jafé euh, jafé chômage pour safara manam xey ak gontu suñu ndaw yi. Sénégal, il y a chaque année 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi, 27 000 emplois, 270 000 emplois avec. 300 000, nouveaux, 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d'emploi, auxquels le président Macky Sall ne donne que 30 000 emplois. Et donc 270 000 jeunes y ont ramené chaque année. à Khey, Si Gontou. Boudjeli le Sénégal, Ngadjor Domou France, enfants Domou États-Unis, enfants Domou Turquie, enfants Domou Chine. Mais yo, diga nekichi fande, diga nekichi khif, di nga nek ci jafé jafé di nga nek ci ñak di nga nek ci lool loolu motel la motax ñu nan waw doomi rew moy tabax rew et que donc nañu bayyi lepp di jox Auchan nañu bayyi lepp di jox Carrefour nañu bayyi lepp di jox Orange nañu bayyi lepp di jox Free te jox ko doomu Sénégal te jox ko ndawu Sénégal góoru Sénégal jigéenu Sénégal